ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew. keroog ko xam Serigne Omar daañ la Omar jébbal Omar ñëpp na ngeen xamoon Omar ngir ci mbiram mbay na xutbu sama. doxoon dundam yeneen bi réew ko jëwrinam xasr wara bi maa ko xam sunna la teg ak i ndëgum fakam foon ci mbir yu ñaaw xaajoy mbindéef jamoo ca gaaw ku tey la woon dëkku lu gaaw ngir bañ a yàq ay jëfam diggante mul kon mala ko da jàll wayi ba jaboru lam fa xamoon mu nekk mbor la daan waxal ak i nitam bur yàlla ko sol ci baatinam defar ko yit ci saahiram du wax lu ci làmmanam xamoon na ni xel mu ñu salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet mbokki taal Farokh TV ñi ñu si daan Farokh TV ñuy taxaw ak El Hadj Jomba di kenn si kër El Hadj Ndaw bokk si organisation siyaare bi Jomba Sakho gannaaw ba ñu la nuyu laaj la programme siyaare bi nan la demee. waaw ñu ngi fay nuyoo bu baax di àndale ko sant yàlla bu baax di xamle programme siyaare bi lu yomb la lu neex a xam la itam siyaare bi du leen lu def ko ngir jëm yàlla ak jëm yonent bi sallallahu alayhi wa jox njukkal it ki nga xam ne tey mooy Maolana Cheikh El Hadj Jomba Ndaw kooku ñun moo nekk ñun koo xam ne ñun mënuñ koy fay ñu taamu woon nag bis bu nga xam ne bu jotee xaddina si yoo xam ne tey biss bis laa joo mën a ndaw la jullit yëpp dajee fi waxuñ jël nañ taalibe bu ñu taalibe day tuuti romb na taalibe yi jullit yëpp dajee fi ci bis bi ñoo xam ne bis bis alaa joo mën ndaw la a ah, ñu ngi sant yàlla bu baax nag ndax liñ ci bëggoon mel ne ni tey mu ngay gën feeñ ndax fi ne taalibe ba dëkkee xarfa ba dëkkee penku xamantu ñoon te fi ne bëri na ñoo xam ne xamante nañ te liggéey bi moo war a loolu liggéey bi du dara lu jox njukkal Seydou Laye Dioma Ndao rek di ñaan it ki nga xam ne tey moom la yàlla def tey mu toog ci place am bi nekk ci xilaafa gi mu Cheikh Mamadou Bachir ak moom moom itam yàlla matal moraadoom liggéeyam yàlla barkeel ko kooku tey moo ne fas yéene jébbal siyaare bi lillaahi wala rasulihi loolu rek mooy jëm siyaare bi waaw sëñ Dioma boo ñu doon wax bi lan mooy sabab bi siyaare bi lan mooy sabab bi ak lan nan la demee siyaare bi lenn rek la bi yi am dogu yu am ñoo génne seen xalaat ne ñun de war nañoo xalaat xam mu nekk ci bu béyee ba nawet bu wàcc li ñu yàlla wasaga ci nawet bi bu gënaaw bi ni xàq yàlla ñuy somp ci dem seeti njabootu si laajo wandaw loolu nag dafay nekk ci ci tarixe bii ñuy jaamu yàlla mu tarixe Cheikh Ahmad Tidiane yi bi xam mu nekk lu mu tuuti tuuti na nga dem siyaare yi sa sëriñ donte ñaari yoon la mbaa ñetti yoon siyaare dafay nekk farat ci taalibe bi ñu nisir loolu ñun bi ko nisiree nag léegi dafa far nekk farata ndax nit si dafay soppeeku farata kon ñu mel ni siyaare bi léegi farata la si ñun sëriñ bi woowu ñu bindu ñu leetar communiqué wu ñu ne ñëw leen siyaare sama déedéet ñun ñoo ñëw ne ko dañ la bëgg a siyaare si yàlla ñu ko loolu nag suñu kilifa baax ñoo jiitoo ñu nekk seen ndaw ne ci seen roon yàlla dañuy dimbale baax si fi si ni tey kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant kilifa yi di gërëm Mawlana Cheikh El Hadj Omar Ndaw lii daal mooy jëm siyaar bi def nañ ko lillaahi wala rasulullahi mbokk Farokh TV ñu ngi ànd fii ñu ngi fii Darou Salam ànd ak sunu madi Madické Dramé di kenn si kër Alaaji ma ndaw di si muqaddam tamit si tarixa si kër Alaaji ma ndaw ndax ñun loolu war nañu preng mu taxanoon la si kër gi kon na ñu ngi taxaw moom fii euh, di ko laa ci mbirum siyaar bi gannaaw bañ laajee jom ba pare euh, Madické siyaar bi fi ndul magi ñi li nii ñan ñoo jiitu siyaar bi kan wala ñu wala kan moo ne si bopp si bopp bi waaw ku ñuy wax Alaaji Babou Dia asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di siyaare di balu di ñaan yàlla siyaare bi yàlla nañ ko fekkee ay ay ay ay ati ati at ci warmaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, li nga ma laaj noonu mën naa la ci tontu bu baax euh, fi ñu toll nii ci mag yi ñii nii ki nga xam ne tey moo jiit siyaare bi ñu ngi koy wax alaaji baabu ja alaaji baabu ja nag euh, fa lillahi alhamdu wa sukuru waaye dafa mage ba fi ñu toll nii fii nga xam ne tey ñii ngànk siyaare bi tey ñëw fii tey ci Daaru Salaam ki ko jiite mooy alaaji Moxtaar Soxna Dramé kooku mooy mooy njiit li Euh, waaw waaw léegi nag euh, bu ñu ñëwee ba agsi fii dañ fi dajeeg ñuy naataango yoo xam ne yii ñu ngi béy ko yeneen i gox fu demee ni tey ñoom baato fu demee ni tey euh, jingili ñooñu ñëpp dañuy ñëw bokk ak ñun ñun suñ fédération bi mooy ku demee ni alaaji Momadou Thiam nga xam ne mooy doom ci bay alaaji Makatim Thiam ak mbolo ma nga xamne mo lay andat àndat ñooñu buñ ñëwé ñun lañuy andat fi su ko défé liñ ci am ci dugub yépp ñu ànd ko dajalé ko fi liñ am ci xaalis yépp ñu and ko dajalé ko fi so ko jébalé nak ci barab yi nga xamne ci liñ ko war jébalé wa waaw gannaaw loolu ma diggé manam maanaam bu ngeen ñi xali ñu Daaru salam na ngeen def ba coordonné yi ba ba dajé ba mëna dem ci ziar bi ci bi ci lu amul ben xët waaw loolu liñ koy man di défé rek moy ko né fi ni ñu séddante ciir li wa ci lay kërim ndax kenn ku ne xamna ko la féetoo mak kenn ki ne xam na kenn ku ne responsabilité bi mu yor su boobaa boo mayee ki nga xam ne moo la féetoo mag nga xam ne yow am nga kattan te moom amul kattan xët-xët du am su fekkee itam may nga cër ki nga xam ne dañ ko jox kàddu euh, jiital ko ci mbir mu da ko doxal kooku nga xam ne kii li muy doxal yow la koy doxalal su boobaa benn xët-xët du mën a am. jërëjëf Malick Daal mais euh, sama dernière question mooy sa diggante Khalifa Sall Mamadou Bachir. Mhm. sa xarit la sa sëriñ. waaw sa diggante moom loolu nga ci wax. ak taalibe waaw li ma ciy wax rek mooy Aji Mamadou Basir képp koo xam ne yàlla dogal na nga dajeeg moom euh, ci taalibe muy lay wax ngay dégg muy def ngay gis lépp loo bëgg a def danga ko mën def ndax moom ci sunna ci la teg tànkam bi te sunna yi ci la bëgg ñu dox loolu moo tax suñ xarit ak suñu jokkoonte fa tabaarakallaahu foo ko natt rek romb na ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Madické Dramé jërëjëf barakallah. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew.